melo kaanam jéggi woon dayoo lool moom marché bu Mbàkke mu boole woon ñaar ba ñett ñaaw lool yàqu lool waaye ñàkk kaaraange it bu jéggi dayoo saafara yooyu jafe-jafe yóbbu woon Serigne Abdou Mbacke ndaw maire bu Mbacke mu sàkk woon ci jaaykat yi nu toxu may ko mu defaraat marché bi liggéey bi am ci anam yu mucc ayib. marché bi nag ñi ngi ko jagleel Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke nekkoon ñaareelu xalifa sëñ ko marché bi Cheikh Mouhamadou Fadel moom la Senghor mayoon marché bi mu ñëw def ko fii ci Mbacke. teg xeer yu njëkk en 1963 ba ni ubbee biñ ko yeesalee nag ñu ne dañ koy delloo tur wi delloo ko njukkal liggéey bi nag ñi ngi sant ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ di sant tamit ki nga xamante ni mooy le préfet de Mbacké ndax jàpp na ci liggéey bi le chef de service de l'urbanisme di sant tamit waa ARD ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy archi art ñi nga xamante ñoo concevoir réhabilitation lii rek lañ bëggoon defar marché bi ba ku fi dikk nawloo ñu defar marché bi ba waa Touba ñëw di fi dugg te loolu bokk na ci liy dundal dëkk bi bokk na ci gën a doxal liggéey liggéey bi it état du moo créé lu ñuy wax PACASEN. muy benn programme boo xamante ni dafay accompagner communes yi ak collect ak agglomération yi. loolu it Mbacké it bu xante ne ba am ca enveloppe ba doon la njëkk a génn it marché Mbacké lañ ci njëkk a liggéey. am na yeneen projet ci war a tegawaat bari yoo xam ne incha rek bi fekk semaine prochaine dina am yeneen yu tàmbali liñ ci jublu lépp pour askanu Mbacké la. te askan wi rek ñoo koy jariñoo liggéey bi biñ koy prévoir juróom-benn fukki million ak juróom-benn lañ prévoir biñ demee ba ci biir liggéey bi gis nañ ne am na bërëb yuñ ci war a yokkaatoon moo tax dem na ba laal juróom-ñaar fukki million ak juróom yu manqué tuuti gis ngeen li xew ci marché yi marché yu bari lakk na am na ay jafe-jafe ñun nag war nañoo fexe liggéey noo xamante ni ba suñuy nawle dikkee ci dëkk bi ñëw ci marche bi nawloo ñu. ci wàllu sécurité monté nañu benn bouche d'incendie boo xamante ni capacité am capacité bu am doole la am nañu ay extincteur yoo xam dañ ko installé ci biir marché bi xam fu jëyee amee rek ka njëkk a jege rek dana mën a yëkkati extincteur bi fay sawara soos ubbi nañu marché bi tamit pour que ëllëgi si biir ñaanuñu ko yàlla bu dara xewoon sapeur pompier mën a dugal seen oto bu jafe-jafe amoon it nit ñi am fuñ mën a jaar def nañ ko ba it bu doon guddi la ñuy ñu fiy jaay guddi lu mel ni événement yi yàlla suñu borom dogal courant coupé am na lampe yu ñu fi installé yoo xam day takk enchaîné nga xam ne lëndamaay du am ndax liggéey bi lépp mi ngi war a nekk ci diiru juróom-benn weer ndax ñetti weer lañ xalaatoon mais bi experts xoole ne mënul ne wante juróom-benn weer yooyu boo xoolee manqué ne daanaka weer ak ñaar fukki fan. wax naa commission bi suba nañu commencé joxe numéro yi commencé installé nit ñi ko defee toogaay amul ñu mën a ñëw équipé ko occupé seen i place wàllu entretien bi it maa ngi ñaan kenn ku ci ne place bi ngay jaay nga jàppe ko sa kër. ndax ku ci nekk sa kër yaa ngi koy defar sa néeg yaa ngi koy defar ajjuma junne dana am équipe type bu ñëw nettoyer marché dana amit ay agent de sécurité yuy nekk ci bëy marché bi pour que nit ñi kenn ku ci nekk mën a respecter sa place bañ la jox mu nekkoon jotaay bu am solo ne marché bi ñu ngi ko tuddee Serigne Mamadou Fadal Mbacké bokkoon ci kilifa yi nga xam ni kon teewoon nanu fa Serigne Cheikh Oumou Falilou moom mi nga xam ni moo fa teewaloon Serigne Abo fallu Mbacké xalif bu Serigne fallu waaye Serigne Moustapha El Hadj Bara ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Mbar Fall mu Serigne Modou Aminta Fall